na leen. man moo xam naa ñaar dinaa ko dugal xaw ma rek ñaar ñaar ñaar laay dugal léegi. ah léegi mais mais mais léegi euh, initiative bi nga xamante ni jël nañ ko pour dajale gars yi ñu ñu am benn communion ah, di daje di football di capturer loolu nag nga gis. non rafet na parce que defoon nañ ko daaw euh, affaire yi macha allah. ren ñu defaat ko donc euh, di remercier PNJ ñoom ñoo am initiative bi def ko voilà donc euh, nañ ñaar rek ñu commencé ko ak jàmm terminé ko ak jàmm international nga euh, yàgg nga football ay compétition yu mag a mag ñu gis sa rakk sa xarit Sadio Mané jógee ci blessure commencé di am ay situation yoo xamante ni da ngay dégg critiques yi au niveau international loolu aussi yow ban réaction nga ci am bon mais si football la bokk te Sadio ndaanaan la ñëpp xam nañ loolu donc lii yëpp euh, dafa bokk si jaar-jaaru footballeur rek mais après moom moo koy gérer parce que jour la boo xam ne moo moo ba am li mu am quoi donc euh, au niveau bi xam na nu muy donc euh, maa ngi koy ñaanal mu ñëwaat ak formam dugal ay but parce que attaquant moom tant que yaa ngi dugal rek lépp lépp mais boo dugalul ci la coow bi commencé mais yàlla baax na man am naa confiance ni dina ñëwaat ak formam. waaye bu ko amee jour bu amee naka la ko war ban état d'âme la war liggéey rek bañ a trop euh, perte confiance quoi surtout ak attaquant dafa metti mais man am naa yaakaar ni Sadio am na am boo xamante ne lii wu ko te dina ak forme xam nga man équipe laa àndal comprends nga gars yi la ñuy def mais la ñu àndal. mais si yow ak sa équipe ak nga xam ne nag nga jël de Sadio Mané pour le coup d'envoi. rek foo reetaan. yéen man happy football comprends la presse. AG bu dee am nga looy nga sànni ko. la presse may leen bi loo may jox tey score bi. waaw waaw. ok rek. 3 et la rek max maa ngi mbalak maa ngi mbalak Henri di ko wax ni max nee na mag nga yéen yéen a ngi gagné nga naan ma ngay mbalak ni ma yaa yaa mën a fen affaire c'était juste pour fexe ko non damay foo ma dëgg damay foo rek yéen journaliste yéen tam wax loo lu mu waxul xam nga ne yaa ma daa fen ah? xam nga ne yaa ma daa fen ah, loolu yaa ko wax rek loolu yaa ko wax loolu yaa ko wax mais sinon naka mais ziar naa bëgg naa leen ba yaa ngi si jàmm waaw alhamdulilah c'est une belle initiative hein ça permet de nouer euh, de bonnes relations avec les artistes on est content parce que artistes yu bëri si internet bi la ñu gisante et que tey bu ñu nekkee entre ñun ñu c'est c'est fun quoi c'est fun. d'accord ana bi ban prank moo la gën a neex ci prank yi nga def. mooy bi ma lay prank yow. non man doo prank. USA <laughs> from USA États-Unis. tey kay ku tax a